alhamdulilahi rabbil alamin asalaatu wassalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xayri xadimihi wa man tabia hudaahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam bu tedd boobu di assalaamu aleykum wa rahmatullah di jiital ci niyoo bi saaxibul fadila Cheikh Sidi El Muxtaar di ko ñaanal suñ boroom mu dëgëral ko ba lim fas yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu defe ko ni mu ko bëggee niñ ko baaxoo defe rek bis bu ne ci jamono yi ñu ànd ak daayira muxaddamatul xidma bi saytu aka taxaw jumaay Touba di def ay waxtaan yu am solo liñ ci jublu rek mooy fàttalante ay bind yoo xam ne danañu jariñ ci suñ dund gi ñu nekk ci biir tomb yooyu tey jii ñu tànnoon tonn tomb boo xam ne ñi ngi koy wax ad daynu wa ahkaamuhu fil islaam maanaa bor ak ay àtteem ci lislaam ku ne xam na ne tomb boobu tomb bu am solo la ndax lislaam doomu aadama yi ak seeni jëflante da ko bàyyi xel bu baax ba lépp loo xam ne ab àtte la ci biir jëflante googu mu teg ca ay war-war ba noppi itam boole ca noo xam ne noonu lañ ko war a defe kon tomb boobu tomb bu am solo la buñ ne bor ak ay àtteem ci lislaam kon yaakaar naa tomb la boo xam ne tomb bu yitteel la ndax néewaana ci jamono ji nga fi dund te doo jëflante jëflante gu mel noonu ndax lislaam lu fonk wàll googu la ba sax yonente bi sallallahu alayhi mi ngi wax ci xadiis ne ki nga xam ne dafa shahid dafa faatu ci yoonu yàlla des na ko jéggal bàkkaaram yépp ba mu des li ñuy wax bor te ku ne xam na ne ki shahid jàng nañ ne li ñuy ñëw def defal ko ko rek mooy bu ñëwee dañ koy jullee rek daat koy deñ ci noonu kon bu fekkente ne lépp lañ koy jéggal ba mu des bor kon bor lu mat a waxtaane la ki ñu ko war a defal nag di sëriñ Mbàkke Abdourahman di kuñ miin ci jataay bi ak taxaw yu mel nii xëy na duñu guddal ci di ko xamle ngir xataayu waxtu wi rek dañ koy jox mu dugg ci tomb boobu di bor ak ay atteem ci lislaam kon sëriñ bi ñu jox la kàddu gi أعوذ بالله من alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu mbokk yi fi teew ak yi ñuy bàyyi xel maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di am mbégte ci teewaat ci barab bii ànd ak mbokk yi daairatu muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bii ñuy def ci ndigalul sëriñ bi ñaan sunu boroom dëgëral leen ba seeni yéene mën a àgg am na solo lool dundal ramadaan te li ëpp solo ci luñ koy dundale bokk na ca jàngalante sunu diini ji nga xam ne su jàggee suñu lépp jag kon ñu ngi nuy mbokk yépp di leen ziara di leen ndokkeel sëriñ xasan loolu mu wax nag tomb bi jàpp naa ne lu mat a waxtaane la ndax néew na nit mucc ci doomu aadama mënta wax ne duma ma leb du leble te ginnaaw diine moom noppiwut ci dara kon lépp loo xam ne soxal na dund nit ñi baax na léeg-léeg ñu nafar ko fàttali ci ñi fàtte woon xamal ci ñi xamutoon ba ñu mën a xam ni mbir mii kat ndeke nii la war a tëdde ngir ñu man cee jariñu te bañ cee loru ngir ñu man cee jariñu te bañ cee loru jàpp naa ne loolu moo tax tomb bi mu jàpp ne am na solo danañ jéem a xamle lan mooy bor ban solo la am ak atte yi ci aju atte yi ci aju bor mbokk yi ci ci ci diine ñaari maana la am dafa am bor boo xam ne am na maanaa mu yaatu moo xam ne suñ ko waxee ñaare lépp lu gàllu ci loosu nit rek ñu di ko ko topp mu war koo joxe danañ koy tudde bor loolu mooy maanaam mi gën a yaatu nga xam ne jëpp àq ju gàll ci loosu nit ñu di ko ko topp dañuy wax ne bor la lu mel ne sax asaka bu la waree waxtoom jot te génnewoo ko dañuy wax ne amee nga borob asaka julli bu waxtoom tàbbi woon ba weesu te mu war la te joxoo ko dañuy wax ne amee nga borob julli koor noonu ak yeneen yépp te loolu mën nañ koo dégg ci xadiis bi nga xam ne ibnu abbas radiallahu anhuma moo ko solo woon ne am na ku ñëwoon ci yonent bi alayhi salaam ne ko sama yaay dafa faatu te amoon koor gu mu war a def te defu ko ndax dama koy fayal ñu de sam ne ko waaw borub yàlla moo gën a yaay ci ñu fay kon foofu ku waroon a woor te wóorut yonent bi alayhi salaam tudde na loolu bor loolu mooy maanaamu yaatu mi nga xam ne jëpp àq lay làmb am nag meneen maanaam moo xam ne moo gën a tënku moo xam ne xëy na moo ñu gën a soxal ci jataay bi mooy bor bi nga xam ne ci alal la jëm ci alal rek lay jëm alal du ñuy topp nit alal du ñuy topp nit mu war koo jooxe ndax am na sabab bu tax mu gàll ci awloo sabab alal jooju nag mën naa doon alal joo xam ne dafa am luñ la jox ba tax nga war a joxe alal ji luñ la jox ba tax nga war a joxe alal ji te joxe woo ko mu nekk bor bu gàll ci saw lu mel ne nga doon jënd dara ñu jox la marchandise mi te joxewoo woo njëg wala nga doon jënd lu dara joxe njëgga di topp jaaykat ba marchandise ko amee na la borub marchandise mu la war a jox wala sax nga dem abbu nit xaalis abbu xaalis boo xam ne rek day ñëw abbu ko dem faj ci say soxla waxtu wa ngeen waxoon bu jotee nga lijjantiwaat xaalis booba ba mu toll ne la nga ko abboon delloo yooyu yëpp day dugg ci biir bor waaye da cay duggaale it nag koo xam ne ci diine la la bor topp ni ki ko waroon a génne asaka te génnewu ko bor la bu ne ci loosam dañ koy war a génne ci alalam naka noonu ku ameel ñi mu war a dundal ñi mu war a dundal ci sariya am ab diir dundalu leen ñàkk dundal googee bor la bu gàll ci aw law sam bu amee alal am na ci anam yoo xam ne dañ koy topp ne ko diw waroon nga ko jox weer wu nekk nangam kon fay ko bor bi nga ko ameel wala sax nga takk soxna ñu laaj la ci ak kenn nga dige walla nga joxe lenn la dige lenn la loolu lépp ay bor la yoo xam ne day nekk ci loosu nit lislaam di ko topp yépp nag am na àtte yu ci aju am na nuñ koy jàppee mu amal nu njariñ jariñ waaye am na nuñ koy sàggane mu doon lor suñ kaw moo tax ma jàpp ne waxtaane ko am na solo euh, solo si bor am nag bu ñu bëggoon mu leer ñu bokk na ci la koy firndeel aaye bi gën a gudd ci alquranul karim mbiri bor rek lay wax nuñ ko war a def charte yuñ ci war a charte yuñ ci war a bàyyi xel te mooy ci suuratul baqara ci sunu borom di wax ne yaa ayuha alladina amanu ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu mbooleem lu ca war a aju alxuraan ci aaya bu gudd boobu leeral na ko ci kon aaya ji gën a gudd ci alxuraan wàcc sunu borom di ci faram-fàccee mbiri bor lay wax lu ñore yàlla noonu nag ba mu jagleel ko aaya ju gën a gudd ci alxuraan loolu doonul lu tuuti doonul lu woyof bëgg na it nit ñi xam la ci aju ngir ñu mën koo joxe nam leen ware kon loolu màndarga la ci ne am na solo bi ci des bor ci boppam ci leblante leb ak leb fu ñuy jaar la ngir mën a jëme kanam am réew maanaam koom-koomu réew bokk na ci li koy màggal jaar ci bor maanaam nit ñi yàlla am na ci nit ñoo xam ne jox na leen xarala ci liggéey mën nañoo commerce lool walla mbir industrie wala yu mel noonu wala baykat yu mag lañ waaye nag amuñ capital bis bu leen nit lebelee capital diir bu gàtt danañ ci liggéey loo xam ne ñoom seen bopp dañuy wëlbatiku di lebal ñeneen te koom-koom ci loolu lay màggee alal ji di dox di dugg ci ay loxo ko génn di màgg di yokku njariñam di gën a yaatu te loolu bu baax a baax xam nañ nit ñoo xam ne man nga ne ku tudd alal tudd leen ku tudd alal tudd leen te boo gëstu woon seenu njëlbeen seen tàmbale ci bor la tàmbalee nit a leen lebal ñu jël seen xam-xam seen man-man jëfandikoo alal jooja ci jaay ak jënd wala ci industrie wala ci bay ba am ca fay lu ñu fayee bor desal ca loo xam ne ñoom dañoo wëlbatiku di lebal ñeneen kon jumtuwaay la buñ mën a yokki alal nga xam ne ñi am alal di ko denc xool ñi mën a liggéey nga lebal leen ko ñu liggéey ci njariñ lu bare ngi ci alal dana yokk te yooyu bu amee bokk na ci li muy jur ci am réew ak dal jàmm ndax ñaare ñàkk ak xiif bari na fit na juy am ci am réew te loo ko waral te fekk am ñu fi yor alal denc ko mënoon koo lebal ñoo xam ne bu leen ko lebaloon ñu mën caa liggéey te bu boobaa dana tax ñàkk gi wàññeeku dana tax yàqute ak xeeti ndëng te yi am bu jeexuti dana wàññeeku kon ci bunt boobu it ci wàllu koom-koom buñ dundalee leblante ci nam waree dana doon loo xam ne réew mi da ci jëme kanam te du tey dana amal njariñ doomu aadama yi ndax am na koo xam ne tey bu amut xaalis kenn du mën a xam lu man xarala na lool ci mën a liggéey waaye amut capital bu mu liggéey waaye bis boo tegoon ci loxoom xaalis rek boo doxee tuuti xam ne jàmbaar la kilifa la ngir mën a wane li ko yàlla may ci wàllu googu rek day doon lu am solo ci wet googu waaye bokk na ci ay solo moom lebit aji leble ci boppam aji leble ji daa bari njariñ yu ko lebal leble di di jural leble bunt la ci bunti dimbalante yi te sunu borom moo ñu santoon ñuy dimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa bokk na ci anam yu rafet yoo xam ne nit mën na cee dimbale mbokkum nitam lebal ko dara mu lijjanti ko delloo la fekk ko takk nga tàgganti ko loolu loolu lu kenn dul werante te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam diggee na ci digg yu bari ñëw na ci xadis yonent bi nee na ku lebal nit ab diinaar ku lebal nit ab diinaar ne ko bu dat sàngamee nga fay ma ba ba bis bay ñëw bis bu yàlla sàkk diinaar boobu danga am yoolu ku sarax ab diinaar maanaam ku lebal nit ab dërëm ne ko bu weer dee nga fay ma bis bu yàlla sàkk ci bis yi nga ko jox am nga yoolu ku saraxe dërëm ndax dimbali gi nga dimbali sa mbokkum nit ba mu mën a jariñu ci loolu njariñ la aji leble ndax ndekete mi ngi saraxe ci alal joo xam ne génnut loxo man aqrada dinaaran ila ajal fa lahu bi kulli yawmin sadaqa ila ajali loolu sunu boroom ci làmmiñu yonent bi alayhi kon soññee na ci bëgg ku lebal mbokkam ndax sarax mi nga xam ne tuyaaba ju rëy ngi ci bokk na ci ay njariñam day fay merum yàlla nit dana ko ame yoolub sarax dana ko amee ci lebal nit la nga ko lebal ne ko fii fan diggante boobu nga ko muñal bis bu yàlla sàkk suñu borom bindal la ci yoolu ku saraxelu tol noonu beneen bi ci desit sax na ci xadis bu wax ne ab sarax saraxe moo gën leble moo gën saraxe am na ci anam donte xadis bi wala moo xadis wax nañ ci waaye albani yi tudd na ko ci euh, ci euh, ci ci ci saxiixu tarxib boole ko ci xadis yi nga xam ne xasan la wax ne inna sadaqata bi ashri amthaliha wal qarda bi thamaniyata ashar wax ne boo saraxee benn boo saraxee ñu fay la fukk waaye boo leblee ñu fay la fukk ak juróom-ñett borom xam-xam dañuy wax ne li tax leble baax foofu nit ki ngay sarax moom ak doyadi ak woyof mooy feeñ ci moom nit ki leb nag day téyewaale dignitéem téewaale ngorom nga xam ne boo lëgee doo ko mën a ñax lebal nga ko noppi na delloo la jariñu na ca waaye nag di loxol xool ba tub maa la xet li maa la nangam du ci am te sarax moom ñaaree fokk fekk loo da ci am moo taxoon yëpp islaam wax ne saa bu ñaari loxo riisoo loxo bi féete kaw moo gën bu féete suuf kon bëgg ñu wax ne nit kii moom dem lebi liggéey moo gën mu dem yalwaani day dugg ci maanaam yi dem lebi liggéey ci moo gën nga yelwaan ndax boo yelwaan moom sa teraanga ji yàlla teral faw nga wàcce ko xe wane ak xeebu sa kanam doyadi ci kanam sa moroom yi jaam ñi ngay dem te boo lebee nag mën nga téye su saraf liggéey ci la nga leb delloo ki nga leb du la yeb du la xeeb waaye jariñ na la am na tuyaaba kon loolu it bokk na ci lii firndeel ne am na solo ci biir lebit xam nañ bu baax a baax ne teggil tiis sa mbokk la ñaare ki dem bay leb toll na ay tolluwaay yoo xam ne ku ko xetul rek bu jël te yonent bi aleyhi salaam noonu na ku wuññil ab jullit njàqare fii ci àdduna bu yowmal qiyaamee sunu borom teggil la ay njàqare man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yowmil qiyaama te teggil nit aw tiis dara jiitu ca bor nit ki toll diggante nga lebal ko mu tàgganteku dem lijjanti dellu si yombalal aji jafe it yonent bi islaam nee na man yassara ala mu'sir yassara allahu wal axira ku fekk nit ku ñàkk ameel la dara nga yombal ko kon loolu ku leble mën na ko def lebal nit waxtu fay jot mënta fay nga yombalal ko yonent na ku def lu mel noonu yàlla yombalal la say mbir kon li ngay def ci sa moroomi jaam ci jàppale leen ak teggil leen ay tiis ak yombala leen seeni jafe-jafe yàlla dala koy fay ci sa jëmm yooyu dem kon loolu day wane am na bor am na solo ñëw na ci xadis it wallahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni axi yàlla du dañ di taxawu ab jaamam feeg jaam baa ngi taxaw mbokkam bokk na ci taxawu sa mbokk nag ci bu kenn nattablewut lebal ko ci jamono yu mu soxlaa loolu taxawu la ko am na ci jamono yu njëkk yee waa joo xam ne dafa doon commerce di lebal nit ñi waaye daa wax ngóor si muy liggéey si koy liggéeyal nga xam ne mooy dem di ko fayu ju ay borom ne ko boo demee ci nit fekk mu ñàkk nga di ko fayu amut woyofal ko jéggal ko jàll fi neen boo ëllëgee nga si waaye bu ko xatal bu ko seetal ndax yàlla man ñoo jéggal boo léegi yonent bi ay salaam nee na kooka ba mu dajee yàlla yàlla da ko jégli bàkkaaram ndax lan daf doon muñal ñi ñi ko ameel bor te mënuñoo fay mu jàpp ndal leen sunu borom joggi ca loola jégal koy bàkkaaram kon loolu it loo ma solo la kon am na solo lool ci aji leble ndax buntub jaamu yàlla la buntub am ngërëmu yàlla la ci moom buntub dimbalante ki mbokkam la te ci biir dimbalantee dana ci am dimbalu yàlla waaye bu dee kii leb nag it na bàyyi xel lii ñuy wax ni le loolu day xiir nit muy lebal nit ndax boo xamee njariñ yi ci nekk lim la mën a jural bu ëllëgee dana tax boo amee loo mën a lebale ku la leb nga lebal ko ngir yàlla waaye ajalab ji it nag na xam ne bor danger la lu tiis la tegandaay ju diis ngi ci képp kuy leb na fekk aajo tax laa leb waaye na nga am yéenay fay te na nga def góorgóorlu ngir mën a fay waaye bul jàpp rek ni nit ñi baax nañ suñ soo leen lebee ñu lebal rek tax nga saa boo xëyee koo dajal ne ko lebal ma nangam jariñoo seenu bëgg lu baax ak seenu sàkku teew ba tax nga gàddu seen i àq lu mat a la ndax bor yonent ay wax na ci yu bari bokk na ci xutuura bi mu am nit daana faatu jamono yonent bi mu ñëw ba di ko jullee yéeg ne daa amee bor mu ne du ko jullee sax na ci xadiis andi nañ am néew yonent bi dal ñëw ndax amee na bor ñu ne déedéet mu dal koy jullee ci beneen nañu indi keneen mu laaj ndax am na bor ñu ne waaw mu ne ndax bàyyi na fi la ko mën a fay ñu ne déedéet mu ne kon jullee leen seen waay loolu sax na ci xadiis ba mu ko waxee abu qataada kenn ci saxaaba yi ne yonent bi maa gàddu bor bi yonent bi àddina ñëw door a ñëw jullee nga xam ne àggoon na ci kon moom bu nit faatoo bokk na ci bala koo jullee day laaj bokk na ci la muy laaj ndax amee na bor suñ ne déedéet mu daal taxaw bu nee baaw mu ne ndax bàyyi na fi alal di ko mën a fay suñ ne déedéet te kenn ci mbooloo mi nungutu gàddu bor ba mu dëpp moom ne leen jullee leen kon bokk na ci bor xoolal yonent bi alayhi salaam wàccoo yam fa su borom nga xam ne ku mu tinu ñu tin la bor dana tax am na nit ñoo xam ne la leen xañ yonentu jullee leen mooy bor buñ gàddu kon day wane ne lu tiis la loo xam ne it kenn waru ko fayee kenn waru cee dugg ci lu dul aajo dañu wax ne ci jalbi lislaam la lan def loolu léegi biñ demee ba futuxaat yi bari nag lislaam am doole ci la alayhi salaatu salaam wax ne ku faatooti te bàyyiwut alal ju mën a fay bor ya man maa koy fayali borom ndax ana awla bil muminina min anfusihim loolu yoonu islaam mu gën a wax ko jullit ñi maa gën a yey ci ñoom seen bopp kon ku faatooti bàyyi bor amut lu mu ko fay maa koy fay bu bàyyee alal nag ak njabootam koy doon ci la mujj bu nit faatoo ñu ne am nay bor yonent bi jël ci alali baytimaal fayal ko borom ñu door koo jullee loolu am njàng mu rëy la moo xam ne nit ku ne war na caa yëg loolu lu lay xañ yërmaane ju toll ne yonent ay salaam tiim la di la jullee war naa moytu waaye loolu abu xataar dafit julit war na ci jàng lu mel noonu bu amee it ku man boo ko fekkee fexeel ba jàppale ko ndax dañuy wax ne bor àq la àq yoo gàddu te àq ak tooñ la moo tax borom xam di wax ne bu nit faatoo ci ñu xaru wala yu demee noonu wala koo xam ne yoon a ko rey ñu ne bu ko ilimaan di jullee ci maanaam moom lañ ko jëlee nañ yebal benn waaye rek ngir mu nekk ak jaaj yi bu mu ëllëgee kenn du def loolu loolu wane na ne am na solo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam it daan na muslu lu baree bari di ñaan yàlla musal ko ci bor allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajsi wal kasal wal buxli wal jubni wa dalaa dayni wa qahri rijaal maa ngi ñaan nga musul ma ci diis diisi bor daana wax ne allahuma inni audu bika min al mathami wal maghram maa ngi ñaan nga musal ma ci bàkkaar musal ma ci bor mas nañ laaj ne ko li ngay muslu ci bor bari na lool mu ne waaw ndax nit bu yoree bor boo waxee wax lu amut bu diggee du def lam diggee te xam na ne yooyu ci màndargay feq la bokk kon bor kenn wërta def loo xam ne rek jàppandi na la rek nit ñi wóolu nañ la foo lebe ñu lebal rek tax yow foo wëlbati ko rek ne damay leb na aajo tax ngay leb na aajo tax ngay leb waaye ñëw na ci xadis yi ne képp ku leb te am yéenay fay te am yéenay fay bu faatoo te mënu koo fay yàlla dana ko jéggal loola gàddul ko bor kon am na solo lool kuy lebit nanga am yéene ne leboo ngir ne nit ñi daal bu ma leen lebee ñu lebal ma kon naa fexe ba jot ci rek kenn du ma rey kenn du ma tëj déedéet jàppal ne àq la joo xam ne du rees boo ko fayit fii ci àdduna it wala xëy nga fay sax na ne ku amel nit bor leb ko tey amoo yéene fay ba faatu fayoo ko bu yomal xaamee danañ jël sa yiw faye ko soo amatu yiw ka nga leb ñu jël ci ay ñaaw defam jóor waaye alali bor du rees loolu moo tax xam la nee na ku leb te amut yéene amut fay gis na ne rek boo lebee ñu lebal tax mu jariñoo loolu tax mu leb nee na yàlla dana ko dana fayul ñam ameel bor bu ëllëgee kon loolu mbokk yi àgg na ci xarit boo xam ne wax ne képp ku jël alal yi nii am yéene fay ko yàlla dana la yombalal loo ko fayee waaye ku jël alal nit ñi te amoo yéene fay ko yàlla dana sànk alal nit dana leb dara du ko jariñoo sax ndax ba mu koy leb amutoon yéene fay yàlla nattoo ko alal ji sànku aqi bor ba topp ko ba yomal xiyaam kon loolu it jàpp naa ne mbokk yi war naa tax ñu bàyyi xel ne bor lu su ko koy fal lii sëriñ Xasan waxoon léegi xadis bu wér la yonent ay nee na bu nit faatoo nekk shahid doon xare ci yo toorub lislaam ba faatoo lépp lu amoon ci bàkkaar dañ koy jéggal àgg na ci darajaam deesu ko jullee deesu ko sa sang dañ koy dañ koy suul noonu waaye nag deesu ko jéggal borom mooy bor yi mu amee moom faw mu fay faw mu fay te am na xadis bu doy waat sax boo xam ne yoon sala benn bis waxi daa wàcc ci moom mu dëng mu jël loxo bi teg ci jëbi jaaxle lool di jàmbat ak taraay saxaaba yi nee na waxuñ ko dara ci ëllëg suñu ne ko waaw démb lu xewoon lu mu doon mu nettali xadis ne giñ naa ci yàlla ne mbirum bor la la ma la ma borom bi doon wax bu nit faatu woon ci yoonu yàlla maanaa shahid ba de jihaad ba faatu ñu dekkal ko mu xeexaat ba faatu ñu dekkalaat ko mu xeexaat ba faatu ñetti yoon mu shahid ko te yor bor lu tàbbi aljana te fayuñ bor bi loolu yoon islaam wax na ko di nafsi bi yadi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uxiya thumma qutila thumma uxiya thumma qutil thumma uxiya wa alayhi daynun maa daxalal jannata xatta yuqda anhu daynu kon mbokk yi loolu lu raglu la shahid maqaama yi gën a kawe ci la bokk waaye nit danañ ko xañ tàbbi al aljanna ndax bor yuñ koy topp ndax bor yuñ koy topp kon loolu nekkut lu woyof lu ma a bàyyi xel la kon aji leble na xam ne leble baax na yiw neen la waaye kii labit na xam ne leb baax na ci kuloru dagan na waaye nag xoolal li ngay leb ak kañ ngay leb ak yéene ji la leb bu lebkat yi baaxee xool li ci nekk ci ay yiw njëggalu yàlla gi dimbalante gi ba tax ku leen leb ñu lebal la it yow mi leb war ngaa bàyyi xel xutura bi ci nekk ci boo lebee te fa yow loolu bu amee rek jàmm dana am su ko defee nag ñu door a ñëw ci àtte yi ginnaaw bu ñu xamee bor noonu la mel solo bii la am ku ci dugg na xam li muy dugg lan la ku ciy dugg na xam dugg lan la moo tax dañuy wax ne kamaaliyaat nit wërta lépp ngir ay kamaaliyaat maanaam loo xam ne boo ko amul dotee sag dundu jàpp waroo lépp ngir loola saa booy lépp moom na fekk da dem ba sës loo xam ne ci sa asaasu dund la bokk maanaam boo ko amut sag dund yàqu mbaa bokk dana jagari nga sës nga door lépp waaye bëgg a neexal sa sa sa sa añ rek waru tax nga ngay leb ndax na ci bor bi boo ko tegee sa kanam da nga muñ añ bu naqari bi mooy gën ci yow boo lekkut nag nga xam ne boo lekkut loru foofu nag sañ ngaa leb loolu it mat naa xam bu ko defee atte yi ci aju bokk na ca dañuy wax ne bor lu dagan la waaye nag léeg mu nekk sax lu ñu sopp léeg bor nekk luñ sob ndax ki aajoo toll ab diggante nga am alal yoo xam ne yow soxlawu ko ko lebal ko ko yaa ngi jàmm yàlla ci moom dugg nga ci biir wa taawanu alal birri wa taqwa dugg nga ci biir allahu fi awni al abdi maa kaana al abdu fi awni axi kon am na solo kon sopp nañ ko léeg-léeg ci barab waaye nag dana sax nag nekk farata léeg lekk lebal nit nekk farata dañuy wax ne tey soo soo soo yoroon ab dund den ak sa mbokk ab dundam jeex tam nara loolu nga dund ba desal desoo sañoo koo denc muy loolu ndax da ko koy may wala da ko koy lebal la ñuy wax kay bu baa booy leb dañ lay forcé nga lebal ko farata la doon nga lebal ko ko ngir mu mën a sooyee ba kanam bu ëllëgee mu fay la danañ ko misaale ci ku amoon ab tool am teen di roose ba desal ki nga dendal teenam yàqu te mbay mi sax na ba noppi buñ ko sàgganee mu yàqu sa ndox moomu sañoo ko téye boo ko mënta may it danga koy jaay lebal ko ku bu amee fay la kon foofu leb dafay nekk farat waaye daan xaram na am na ñoo xam ne lebal leen dafa xaram nit koo xam ne leer na la ne li nga koy lebal da koy mooy ji yàlla kooku day dugg ci wala taawanu ala lithmi wal udwan kon booy lebal nit it bul def ay waahid yu ñëw rek nga lebal ko nanga dem ba yëg ne fa mu koy dugal fu jag la waaye kuy leb di fo kuy leb di mooy yàlla kuy leb ci mel noonu lebal ku dëgganul anam gi ngay leb la it bu ci ribaa am bu ci ribaa nekkee baaxutul loolu it bokk na ci àtte yi nga xam ne yu ñu war a bàyyi xel ci leb la bokk na ci àtte yi ayu ci bor bor dañ koy wóorlu maanaam ñun niñ baaxoo def nii rek ñëw na la sëñ bi dama lebal nangam nga daal di jël jox ko yaag moom yàlla bindoo bindut kenn séeréwut diine day tere loolu te lépp lu diine tere nag mbokk yi ku koy def bis dana ñëw nga xam lor ja mas teew ci barab mbokk yoo xam ne dañoo dëngoo ci bor yu ñu toppante bor yu ñu toppante ni ameel na ma bor ñu ne ko amee lu la bor ndax gisuñ fenn firnde ma ne ko lislaam fu ñu ko wàcce gis lor ji ba sunu boroom ne itaa tadaayantum bi day daynin ilaa ajali musamman boo bind leen ku bindut tooñ la te lii ngeen def nii loolu bokk na ci màndarga yow bindoo ko fenn moom bindu ko fenn du ma saxal ne bor am na du ma ko dàq du ko saxal ndax gis mu firnde duma ko dàq ndax séq ngeen lu war a tax nga mën koo lebal waaye bu wàccee charia nag tàmbale gis lor yi moo tax ci charia bor dañ koy bind am na sax ñu ne fakk tuboo ji amru ji amru ijaab la farata la dañoo war a bind xam ne amel naa ko wala yaktub baynakum kaatibun bi adl day wax sax da indi nit nga xam ne day bind bu ko defee aji leb ji moo koy dikki ne ko bindal ne man diw leb naa diw nangam buñ àggee bis sàngam laa koy fay wal yumli lilladi alayhi alxaq boo noppee wutal koy seere wa ashhidu ida tabayaatu wutal koy seere wastashhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun imra'atani mimman tardawna min shuhada nga xam ne bind doyut waaye dañ cey boole wut ay seere yuy seere ni diw sàngam di sàngam ñaari nit seere nañ ne leb na diw lu mel noonu bu amoon bor du lënt mukk waaye ñaata yoon lañ gis nit faatu nit ñëw ne diw amel na ma ñuy xoolante ñenn ñi gëm ko ñenn ñi di ko weddi kenn amu ci lu leer àq yooyu di sànku nag lu mat a moytu la buñ jëfandikoo li lislaam santaane nag danañ ci mucc kon bor dañ koy bind bor dañ koy bind bul jàpp ne wóolu naa la ki koy bind wóoloo di ko wula ndigalu yàlla def bu ñuy wut seere it noonu ndax ñaar ñi koy seq kenn mënta wax ni ëllëg dana ma fekk te àq ci dafi des moom ñu war ko lijjanti kon wuti seer mooy njariñam bor it dañ koy wutal ab dig bor dañ koy wutal ab dig bari na ñun ñoo xam da ñëw rek lebal ma kañ mu ne su ma amee fay la kañ ngay am loolu leerul su ma amee fay la su ma lijjanti ko yooyu leerul mbokk yi ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman bor dañ koy wutal ab dig su dig ba agsee nga mën a fay baax na su mënta fay nga ñaanaan beneen dig waaye muy leer ne ndax loolu dara dimbali ni fi ne nit ki xam ne diw leb naa ko ma moroomu gor a taraang defal na ma taraanga lebal ma bis sàngam la waxante da def loo man ngir bis baa nga fay waaye boo boyalee rek loo am war koo fayee bu yitte teewee nga ne ah naa ko def ci yitte ji teew ji bor bi bu ëllëgee loolu ngay topp ba farfar moo tax bor day am dig ñu bind ko wutal koy seere waaye borom bi leeral na boo demoon ba foo xam ne loolu mënta am wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban fa rihaanu maqbuda boo ngeen demoon ci àll wala àgg foo xam daal ay seere ñi mënu fa am na ngeen wóoru bi ak tayle xam ne da koy lebal waaye na la tayle na yor bagage bu mu la jox boo xam ne dana am xiimay li nga ko lebal sunu sang alayhi salaatu bi muy génn àdduna mbubbam daa fekk mu nekk ci ab yoxoor ñu tayle ko ci dug dugub ju mu ko leboon kon loolu lépp wóorul la yonent bi salaam mi gën a wóor ci nit ñi buy tayle dara ki gën a maandu ci nit ñi buy leb di tayle di ndigalu yàlla lay def kon loolu tekki wut ñàkk wóolu di ko ndax léegi-léegi nit ñi yu mel noonu ñu di ko daw ngir bañ mu jàpp dama ko wóoluwut déedéet jàppal ni ndigalul yàlla ngay def yàlla moo ne bindal bor bi wutal koy seere bu ngeen amut loolu wut leen ak tayle na fa bàyyi dara bu waxtu fay jotee tu mënta fay loola ñu mën koo sàkkal pexe nga génn ci sàq delloo ko la ci des kon gis ngeen ni sunu boroom leerali mbir yi bëgg ndax bañ doomu aadama lekk àqi mokkam ndax àqi nit dafa dafa dafa diis mbokk yi yàlla yërmandeem li nga koy tooñ moom yomal xeem bu ko neexee bàll dara du ko ci topp waaye sa moroomu jàmm moom àq joo ko amel te fayoo ko ko yomal xeem doo jàll te fayoo benn nañ jël saw yiw jox ko wala jël aw ñaaw teefam jóor la waaye du ngeen dem rek noonu gis nga sëriñ bi jàngal nañ ko ba ci neen yowmal xiyaam jur gi amoon i béjjën ci àdduna di mbëkk seeni morom yowmal xiyaam dañ leen saxali béjjën yu fay wa yaqawul xisaasu bayna jamma wa xar na li adlin samma loolu moo tax bor kenn waru ko woyofal ñàkk ko bind ñàkk ko wutal seere ñàkk ami tayle bokk na ci limuy muy jur aq yu sànq nit faatu na ndiw ni amel na ma nit ña weddi ko amul firnde ñu bàyyi miraas lekk xaalis ba dem àq ji topp néew bu moom te lu mu ko mën a fayee ngi fi su ko bindoon wutal koy seere loolu du ci am kon bokk yi bor dañ koy wutal seere lu bari nag dana di am rawatina bu ñuy miraas séddale am ñoo xam dañuy topp ñenn ñi nañu bàyyi xeen loolu lépp ay ci bor la bokk yow ci alal yaa war a jox diw nga ne waaw kañ ngoo jox nga ne su ma amee bari na ñoo xam ne miraas nañ leen fukki at ñaar fukki at fanweeri at bor ci amee woon fàtte nañ ko bu yàgg fayuñ ko te ñu ngi dund ci alal te àq jooju du rees du rees mukk kon lu ma ta xel la yu mel noonu ñu di ko bind suñ demee ba mënuñoo fay doon dañuy wëlbu ko jaay loola kenn ku ne àqam moo waaye lenn lu ñuy bokk ñenn di ko jariñoo ba faw ña ci des ci tumuraanke jotuñ seen àq aqu juré yi noonu mbokk yi lu mat a bàyyi xel lu mat a moytu la te dana di am nag bu baax a baax dana di am léeg lañ gis koo xam ne leb jotee day fexe ba leb rek yoonam nekkuti fay jàpp na daal bu ñu ko xasee lebal moom baax na seq ngeen mbokk loo xam ne rus nañ la yóbbu ci yoon rus na nangam da de leb di lekk rek woo xel ne bis dana ñëw ci kanam jàmm ñëpp ñëpp teew ñu ne la kaay li nga amoon lépp ngay fay loolu ku koy xalaat dana moytu bor ci yenn yooyu waaye bor it nag li ñuy tuddee xaalis dee su ci leblante am na loo xam ne ba ko lislaam di tere junni at ak nangam léegi la àdduna dox ba gis la taxoon mu di ko tare xam nga dañuy wax ne la or ak or bu ñu koy wecc ko kenn du ko leblante yooyu teew mi teew la maanaam boo doon jaay nit yor benn xeetu or am beneen boo soxla lislaam nanguwut nga ne ko ci suba gi laa lay jox bu ngoonee nga indil ma li may jox yow moo xaalis yi ñu jaay léegi li ñuy tudde wecc ko yi ñuy def diggante oro ay CFA ci lislaam dagan nañu jaayante ko waaye nanguwul leblante maanaa sañoo ñëw ne waa ji dama lay jox junni ci euro nga war ma koo jox lu toll moom ci CFA mu ne leen waaye bu ngoonee laa la koy jox déedéet moom loxook loxo léegi si ci buur yi gis nañ ay seconde ay seconde euro da ci yëkk wàcc ab dollar nga xam ne li lislaam taxaw mu di ko tere xikma bi mu ngi door a feeñ ci suba tey ci suba fekkoon tey da ngaa jox nit euro war koo jox CFA mu war laa jox CFA lam doon jar ci suba mu dem ba ci ngoon mu yéeg bu ngeen dikkee coow am ndax léegi lu mu lay fay ndax la ngeen waxante woon ci suba wala li xew tey ci ngoon gi moo tax lislaam bañ yooyu ñu di ko leblante moom na jox na teg ci sa loxo nga teg sa loxo ku ne dem mën ngeen a génn laata ngeen di tàggoo sax ñu ne jékki-jékki ne yéeg na wala wàcc na waaye fekk na ku ne jot na ak xam aw ñamit dee su ko leblante ñam dee su ko leblante teew mi teew la an tey boo yoroon ab ceeb am xam nga ceeb ay xeet yu bari la mën nga cee yor benn xeet soxla weneen yow war koo jox nit ngir mu jox la ba mu yor lislaam nangu na loolu ci kaw ñaari sart teew mi teew lay doon lépp bar ci bar lay doon bu ma la nattalee juróomi kilo ci ceeb bi danga nga may nattal juróomi kilo ceeb bi ci des donte seeni njëg wuute na yooyu kenn du ko ëpplante kenn du ko leblante daganut ma ne la naa la jox saako ceeb ci ceeburu saa tool nga ne bu ngoonee nga ñëw ma jox la siyaab daganut ma jox la benn saako nga jox ma ñaari saako ci beneen bi daganut yooyu lu ma ta xam la ba koy jëflante yu mel noonu it xam ne yu mel nii dee su ko leblante moom bu ngeen koy jëflante it na ñaar yëpp teew waaye ñaar yi ñuy wecc konte bu benn ba teewul rek daga bokk na ci attay bor dee ci tëj nit bor kenn du ci tëj nit maanaam ci lislaam bu nit lebee amut lu mu fayee bu demee ci yoon dañ koy wax mu wut dele kañ la mën a fay dem liggéeyi ba ba muy fay waaye bu ñu vérifié ba xam ne amut lu mu fayee kenn suñu koo tëj ndax bor ndax boo ko tëjee yokk joote la waaye ji amul lu mu fayee ba noppi nga tëj ko ci kaso bi xanaa koo xam ne daal lank bañ a fay kooku moom yoon may nañu tëj ko waaye ki nga xam ne daa amul lu mu fayee la tere koo tëj ak nag koo xam ne masalan dafa melaw kawam daa mel ni am na te amut ni mu baree loolu ci suñ gox yi day gis koo xam ne day sol ba ne jóg te fekk yorut dara bu la lebee boo dajee moom da nga jàpp ne am na lu mu la fayee mu ne la yoruma dara doo ko gëm kooku yoon may na la nga yóbbu ko yoon ñu seet buñ ko tëjee ba wiri vérifier xam ne amul nag ñu bàyyi ko mu dem kooku la fu xay wax ne bu doon bisu ajuma mu ragal ne bu génnee daje gaa yooyu ñu yóbbu ko kaso sañ naa bañ jullit julli ndax suuturaal boppam ndax xam na moom ne digg ma yàlla yorut dara donte mbuum rafet na waaye bu génnee sañ nañ koo jàpp yi yóbbu tëj ko ngir wóorlu wóorlu ko ku muy jaar te moom xam na ci digg ma yàlla ne yorut dara moo tax yoon may na kooku bi su ajjuma jotee mu bañ a julli ngir bañ ñu gis ko di ko jàpp waaye bor deesu ci tëj nit koo xam ne daa amut lu mu fay loolu am solo la léeg-léeg coow da ci am. waaye nañ xam ne ci charia islamiya boo boo lebalee nit dama dem ba xam ni daa amut la fayee ñaanal ko yàlla muñal ko ndax jaamu yàllaa ngi ci waaye bu ci tëj ndax loolu sañu su ci tëj nit bu lànkee nag bañ a fay moom sañ nga ko yóbbu ci woon ngir mu fay la bokk na ci àtte yi aju ci bor bor deesu ci deesu ko jaayee bor maanaam deesu ko fayee bor maanaam léeg-léeg nit koo xam ne dalay ameel marchandise nga wecci marsandiis ma leneen ba noppi loola doon bor dañ koy tere wala mu amee la xaalis weer wi dee mu war laa fay ñu ne ko xaalis bi mu amee loon léegi dañ ma ko defal nangami bëri koy ceeb waaye bëri koy ceeb yooyu nag dañ koy lebaat mu nekk jëmbaat yeneen weer dañ koy tare loolu mooy li ñuy tuddee eh, firi bor ci bor dañ koy tere ci lislaam mën nga koo firi ci leneen waaye loola na nekk teew mi teew loolu it bokk na ci att yi aju ci bor tañ war koo xam xam nga bor nag am na lu ñuy tudde day dikki nit ñun ci wolof lépp bor la ñuy wax boo demoon ci bitig ba jël fa marsandiis te fayoo da nga naan ameel naa ko loolu xeetu bor la li ñuy tudde salam nga xam da ngay jox nit xaalis di ko topp marsandiis loolu bor la bu ne ci loo sam waaye am na beneen xeetu bor boo xam ne moom jaamu yàlla la jëmul ci du jaay ak jënd mooy nit ki soxla ñëw nga abal nga abal ko nga xam ne yow lam la jox bu ëllëgee moom ngay delloo si xam nga bu dee jaay dangay dem jënd ab téere war koo fay junni wala ñaari junni bo mu nekk bor nañ saw loos bokkut ak nit ki abal la junni nga war a delloo si waat junni boobu bor boobu nag nga xam ne moom da nga koy jox xaalis abal kooku ngir bu lijjanti ko delloo si waat la ko jox intérêt waru ca am maanaam daganut ci lislaam nga lebal nit leb goo xam ne buy fay da lay jox lu gën mbaa lu ëpp la nga ko joxoon ki lebal junni daal booy fay junni ngay fay moom lu mu ci am moom ki la lebal tuyaaba ndax fekk na mbokkum jullite mu aajo woo mu dimbale waaye loolu entité waaye sañoo nag li xew banque yi di ko def nga xam dañ naa la mën naa la lebal waaye dama ci teg 10 pour cent bépp bor bu mel noonu mbokk yi dëgganut ab jullit waru koo leb allahumma mu dem ba sës dem ba sës mooy lan ni ki nga xam ne médd dafa xaraam waaye nit ki bu dee ba àgg ci bu lekkut dee te gisul leneen lu mu lekk du lu medd mi sañ naa lekk médd ku àgg foofa mën naa leb ci bànk leb boo xam ne day tegu ci riba boobaa ñàkk pexe la ñàkk ko lebal ñooy gàddu bàkkaar ba waaye moom ñàkk pexe ku ci dugal waaye nañ bàyyi xel ne daal bor warta jur njariñ bu dee bor boo xam ne du jaayante waaye da nga abal nit dara mu war la ko delloo siwaat intérêt wur ci am bu ci inte amee rek riba la lu mu tuuti tuuti nag lu tuuti bu ci intérêt xasee am riba la daganut ab jullit di ko jëfandikoo kon bor du jur njëriñ mën naa lebal ne waaye nag su ma lebalee day ba may fay da nga indi wala nangam yow lebal ko ngir yàlla buy fay la ko lebaloon lay indi waaye doo ko ci teg yeneen daan yoo xam day fay lu ëpp mbaa boog nga ne ko mën naa laa lebal fi pep mu ñaaw la de waaye bis boo may fay pep mu yees nga may fay boobu bor bu jur njariñ la ndax yow joxe nga pe mu màggat bañ lay fay fay la mu yees bu fekkee nag kii fay moo ñëw coobarewu xam ne yow kat defaloon nga ko teraanga ba mu lay fay mu daal lay fay fay gu rafet loolu ci islaam rafetuk fay boor lañ koy tudde nit ki sañ na man kat wax dëgg yàlla diw di moo ma lebaloon sonnoon naa lool ginnaaw yàlla defal ma ne bu ma koy fay am naa lu gën la ma lebaloon man lu gën lay joxe waaye kenn forcé wu ko ci diggante leen ko sartante wu anam googu dagan waaye du dagan nag ñu di ko sartante wala yu demee noonu bokk na ci attey bor mbokk yi nit ku leb du joxe addiya kim leb xam nga leb nit war koo fay fayoo ko jékki-jékki ñëw nuyoo ko dara yooyu lëntal la yaa ngi lijjanti boo liggéey bu mu wax bor ba xeetu ger la moo tax ci fiqh fuqaay dañuy wax ne aji leb fii ak fii ak fayit borom kam leb bu mu ko jox addiyee bu mu ko jox kado bu mu ko may dara loo ko nar a fay kay dóor ko ci borom waaye may googu mën naa tax waa ji rus la waxtu fay jot du la fayu àq yee des fa moo dañuy wax ne joxante ay ay hadaya ci diggante ñu ay bor séq dañ koy tare ndax mën naa tax ba àq yee du gën yow jox nga ko loo xam ne rus na rus na fayu la bor bi àq ja des fa ngeen di ko toppante te mën naa boo ko joxtoon loolu bu fay jotee te fa yow mu ne la yow kat am nga la ma waxoon te joxuma maanaam xeeti jëflante moom jëflante boo xam ne day nuuru ak rafetal te fekk la ko lal mooy bëgg bëgg koo xañ a yàqam moom la ñuy tere loolu it bokk na ci yi nga xam ne julli bu ne war na ko moytu baax a baax bokk na ci attey bor nit bu lebee bu lebee ba mënta fay bu ñuy séddale asaka sañ naa dem jox ko ci asaka ji mu fayee borom borom bi lim ñeeyoo asaka innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakin wal amilina alayha wal muwallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina la ci tegoon mooy ñi nga xam ne dañoo amee bor donte nag fuqahaa yi leeral nañ foofu ne du aj leb ju ne mooy koo xam dafa leb ci dëgg da doon faju da doon dundal njabootam day liggéey leb goo xam ne foo fooyewu ba waaye ji leb di fo rek yéeg ne ñi ngi fiy séddale asaka mu ne naa na na naa gaaw a leb lekk noose ko kooku kenn du ko jox asaka waaye na doon koo xam ne bor bi aajo moo taxoon mu leb te it te it day joxe lim am nag dañuy wax ne xaarim bala ñu ko jox asaka dañ ko loo yor lépp li nga xam ne mën nañ ko dañ koy jaay ci ku fayit maanaam bu yoroon ñaari kër dëkk genn genn gi mu di ko looyee dañuy jaay kër googu dugal ci bor bi bu yoree walis boo xam ne yére yu mu toilette la yemi sol ak di ko jullee ajuma la ci des dañ koy jaay dugal ci bor bi bu ñu dugalee yëpp ci bor ba nag bor bi matut ci la ñuy door a jël ci asaka mottali waaye jubluwuñu wax ku mel na nu jël ay biens yu bari leb jënd ko ay biens teg ñu daal di wax rek asaka mu daal di ñëw ne joxe leen ma fay ba téye ak alalam déedéet day fay day joxe lim day joxe lim yor bu desee nag ñu xam ne amatul leneen lim yor lim dese mooy li muy dunde su boobaa nag ñu mottali ko ci asam loolu lu ma ta xam la waaye bu ñu lay too rek ne euh, asaka euh, boo yoree bor sañ ngaa laaj ci ji wooye fiwut noonu am na sart yu mu tënku yoo xam ne yooya faw dañ ko ci sóoraale ngir mu door a tegu ci yoon waaye duñ wax rek ne ku leb rek ku leb leb gu tegu ci yoon alal ja ba nga ko lebee it ci ak dëgg nga ko sànq da koo dundal sa njaboot da nga koo fajoo yu mel noonu waaye foye woo waaye kuy fo kuy caaxaan kenn du ko dimbule ndax boo ko dimbulee dimbule ko ci mooy yàlla moo tax ñooñu kenn du leen jox asaka loolu it ci attey euh, asaka la bokk attey bor bokk na ci attey bor dee su ko rotalee asaka masalan benn waaye ngi ni amee la ñaar fukki junni ab faqiir la wala miskin la wala ñooñu asaka ñu war a lekk asaka nga ne ko man de dama war a génne asaka ñaar fukki junni léegi tiire naa la ko ñaar fukki junni yi ma waroon ameel faye naa la ko léegi def naa ko asaka lislaam day tere loolu ndax dañuy wax ne wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquun walastum bi aaxidihi illa an tuxmidu fii bu leen seet li yées seen alal ngeen di ko joxe te ku leen ko joxoon nga bañ bor bi nga fayu koo gut ci li yées sa alal lañ ko jàppee nga xam ne yaa ngi calcule ne su ma ko deful noonu sax man naam doo fay kon naa ko tiire génn joxewu asak ku def loolu joxewut asak kon dee su wax ne diw amel na ma bor war na maa joxe asaka te yaayoon asaka tiire naa ko jox ko asakaam boo ko joxee nag ba mu moom ko moom mu jékki-jékki jël ko ñëw ne la yow ko amee loon naa la nangam faye naa la ko dara nekku ci fekk na ci coobareem la waaye du sart bu ngeen teg du loo ko wax waaye bu fekkee nag da ko da nga ko koo tiire wala nga ne ko dama la ko jox waaye su ma noppee nanguwaat ko bu baaxul loolu lu ma ta xam la alal ji asak ji daa war a génn dem léegi nag day mel ne kooku da nga koo tiire te da boobaa dañuy jàpp ne da nga koo xayma waaye génne woo jëmi asaka ji kon loolu it atte yi ñu war a xam la léeg-léeg nit ñi di faral di def lu mel noonu jàpp rek bu ma ko tiire baax na déedéet ñu bàyyi xel ne it ci leb bépp pexe yu nit ñi lebalante te muy jur riba dafay xaram bokkoon na ci xeet yooyu yu ñenn yi daan def nga xam ne dangay ñëw soxla xaalis ci boroom ab jaaykat mu ne la man nag mënu mu laa lebal xaalis de waaye mën naa laa lebal de ab téléphone ab appareil daal la ma koy lebal fukki junni lebal la ko ba noppi ne la soo bëggee mu jëndaat ko mën naa ko jënd léegi quarante mille yu def loolu dafa xaraam ndax ci fiq dañuy wax ne teggil appareil bi ci bi dox ci diggante bi lu xew dama laa jox quarante mille di la fayu cinquante mille riba la mooy aynu riba liñ doxale ci diggante bi dañ ko fay doxalee ngir lëntal waaye baaxul naka noonu yit jëndoo ko waaye da ngaa yebal beneen waaye jokk xaalis da dem am waa ji génn nga kar ko ne ko saa yi da ngay jaay lii ma ne mën naa ci quarante mille fekk yow borom bitig bi yaa jox waa ji quarante yi mu génn dajeeg waaye jaay ko ko ñëw delloo si la nga mosal ko ci mille francs wala wala cinq cent delloowaat sa marchandise loolu pexe yi pexe yi gaa yi def la daganul mbokk yi ndax yooyu yëpp ubbi ay buntu pour leb leb dara fay lu ko ëpp la saa booy leb xaalis nii moom ci lislaam na doon bëgg a jaamu yàlla ci sa moroomu jaam dimbule ko mu weesu ay xat-xat delloosi la waaye bu ci benn intérêt di juddoo rek daganut benn intérêt bu ci juddoo daganut kon loolu lu ma taxam la ñi jëflante yu mel noonu ñu xam ne amul njariñ te riba li tax baaxut day xañ day génne barke ci ab ci alal yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqaat kon te ci leblante dana fi am lu bari lool rawate na jëflante yi xew léegi nga xam ne banque yi daanaka mën nañoo wax ne yi ci ëpp bu fekkee am na am na yu jur jëfandikoo riba it liñ gëm ñoom mooy dañ lay lebal teg ci intérêt loolu nag baaxut moom dañ ko bàyyi xel ki ko war def daal mooy ku dem ba sës ki ki mu dagan ci moom mooy ku dem ba sës loolu nag bëriwut di commerce gis marchandise yu bees nga bëgg sa commerce yokk rek tax nga leb loolu sësoo ki am lu mu jàpp nga xam ne tey bu lebuti du tey mu dund kooku sësut ki sës mooy koo xam ne bu lebut fi ne du dundati walla soxla teew na wopp na wala woppule na amul lu mu ko jëndee gisul ku ko lebal ci ci yoon gisul leneen kooku sës na ñu mel noonu ñaare bu ñu ko defee yàlla moo leen dimbale boobaa nag bàkkaarub riba ba ña ko ko lebal ñoo koy gàddu waaye feeg jàmm ngi am nga mën a am beneen bunt ab julit warta jëfandikoo riba warta leb-leb goo xam ne da cay teg dara bu ko defee nag mooy ba tey dana di am banque yi léeg-léeg nga dugal fa sa xaalis ñoom ñu ciy liggéey am intérêt bu la ci tegal boobaa yow yaa lebal bànk bu lay fay tegal la ci intérêt boobu baaxul waaye moom it dañuy wax loolu lañ ci wax lu mel ni tey nga xam ne xaalis kenn mënu ko denc ay kër nguur da koy tare ndax yu bari lor yi risque ci nekk te amoo fenn foo ko denc amu banque bu tegu ci yoon lor lor la nga denc sa xaalis ci banque yooyu waaye su boobaa nag boo ko defee compte bloqué wala intérêt ba ci juddoo danga koy jël te doo ko lekk bu ko bàyyi ci banque bi moom ndax soo ko ci bàyyee da nga leen di dimbale ci jëfandikoo riba waaye bu ko jël boo ko jëlee bu ko lekk képp koo xam ne ab dundam yow la war bu ko jox mooy mën nga ko jël léegi yóbbu ci lislaam hôpital bu ñuy tabax daara ju ñuy jàngale jàkka ju def yooya ndax alal li ma bàyyi xel dinaa ko faral wax mbokk yi du jëmmi alal ji mooy arab waaye ni ci nit ki jotee mooy arab waaye alal des ko xotti des ko lakk des su wax ne li alal ju arab la nañ ko lakk sànni kenn wax loolu waaye yow ni nga ci jotee mooy arab yow ginnaaw riba la banque bee ko fayee ndax intérêt la sañoo ko lekk ndax moomoo ko doo ko maye doo ko saraxe doo ko joxe addi it da koy joxe ngir mucc ci alal ju arab su ko defee nag lépp lu amal njariñ mbooloo mi amal njariñ lislaam sañ nañ ko caa dugal ndax du caa génn alal dafa du alal ju seetut de alal ji ñuy tere keneen lekk ko mooy bu fekkoon da nga koo sàcc ki sàcc alal moom suñu koo lekk suñu koo lekkaloo keneen mooy da ko war delloo borom waaye bu dee nag alal yooyu nga xam ne danga koo leb mu dikk la ci anamuk riba intérêt bi bu dikkee daf ko ci masalihul muslimin bu ko defee yow da nga mucc ci bàkkaar waaye nag bul saraxe bu ci yéene sarax bu ci yéene may ndax moomoo ko da nga koy joxe rek li taxallusi min az-zunub ngir bëgg a ci bàkkaar moo tax nga di ko joxe loolu it lu ma ta bàyyi xel la kon ñii denc xaalis ci banque ngir ñàkk pexe tey banque yi lislaam moo faroon a am riba bañ a am waaye ginnaaw amul nag yàlla na toon nañu loolu buñ ci intérêt dañ koy jël waaye buñ ko lekk na nga denc ko it ñi nga war a dimbale nga xam ne yaa war a taxaw nga leen ko jox mooy képp koo xam ne dundam yow la war bokk ko joxee lekk nga ko suñu ko lekk moom kon dugal ko ci lislaam masalihul muslimin mucc ci bàkkaar du tee lislaam jariñoo ko ndax jëpp alal joxe ne amut borom ñëpp ku bokk moo tax ñu naan baytul maal mooy waarisu man laa waarisa woo nit bu faatu woon sax bàyyiwut kenn ku koy donn baytimaal yi doon alal baytimaal mooy fi fi alal ji ñëpp bokk nekk nga xam ne kon masaalixul muslimin ci lañ koy dugal loo xam ne ñëpp koy jariñoo ci lañ koy def lu mel noonu it baax na bokk yi ñu bàyyi ko xel bokk na ci attay asaka ku ame bor ku amee bor boo xam ne nit la ko ameel nit dalaa ameel bor yow fayagula ko mu ne ci loxoom alal jooja asaka du ca war bu dee day nun mu ajjal nga xam ne digg ba ñëwagut asaka alal du ca war masala nit mën nga koo lebal dara wala nga jaayoon ko dara juróomi at mu toog juróom juróom benn at door laa fay fii ak la doo génne asaka ci alal jooju waaye bis bu la fayee nag nga génne ci asakay menn at bu fekkee ne alal ji ni mu la dëkkee woon mooy lu mel noonu loo jaayoon la wala yu demee noonu am na sax yoo xam ne mën naa doon bor juróom juróom benn at te boo jotee sax asaka dool ci war lu mel ne tey jigéen joo xam ne boroom këram da ko amel ak can ne ko dinaa la jox nangam ci alal avance ko ci dara la ca des mu topp ko mën na koo topp ay at bis bu ko fayee lu mu yàgg-yàgg ci loxoom soxna si mu ngi door a jot ci alal kooku alal jooju da koy denc at asaka dool ko ca war wala nga mira ñi miraas amoon tey ñu nga doon dara ki la ko war a jox joxula ko mu ne ci loosam mi nga topp ko ay at mu doon la ko fay bis ba mu la ko fayee keroog nga ci door a jot alal jooju doo ci génn asa ci saas donte bor la boo xam ne am na at ci loxoy kam ne woon yow yaa ngi ciy door a jot dëgg-dëgg danga nga koy dencaat at as ko door la ca war naka noonu yi xeet yooyu àq yu mel noonu yëpp léeg-léeg nit gaañ nit war a joxe dee ndàmpaay ndam ndàmpaay la nekk bor ñu topp ko ay at mu door ko joxe yu mel noonu moom danga koy jot denc ko at asaka door ca war waaye bu dee nag loo xam ne ci jaay ak jënd la wala yaa ko lebaloon xaalis mu denc koy at door laa fay bis boo ko jotee génne ci asakay menaan loolu yërmaane la lu dul ne da ko danga da koo denc foofa ngir daw asaka waxuñ nag koo xam ne saa bu aji dikki ne la sëñ bi te ma laa fay sa xaalis bi nga ne ko téyel ma ko soxlaa gu ko fekk yow bañ a génne asaka kooku nag at weesu yëpp ngay fay yooyu it mën bàyyi xel bokk na ci àtt yi aju ci bor asakay xaalis bor da koy teggi maanaam nit koo xam ne tey dafa yor ñetti million yoo xam ne moo ko moom waaye nag amee na bor ñetti million te amul jeneen alal xaalis bi dong dong la am kooku li muy wane mooy xaalis añ ci loxoom moomu ko kooku asaka waru ko ci ñetti yi ndax ñetti millions da koy fay bor wala boog bu fayee bor bi li des ci alal ji mëtul nisaab kooku it asaka du ko war kon loolu baax na ñu xam ko ne asaka bor dana tax asaka teggiku la waaye nag ci sunu masa bi ñu nekk moom borub xaalis tax ñuy wax borub xaalis waaye soo bayoonub tool ba mu ñor asaka war a ca bor yoo mën a am da ngay génne asaka mbay su amoon jur ñu toog at ci saloo loxo asaka war ca bor yoo mën a am da ngay génne da ngay génne asaka ji ñoom asaka yi xaalis lañ wax ne boo ko yoree te yore bor ñu teggil la bor bi ñu teggil la asaka fayal bor bi bu desee lu mat asaka asaka door laa war wala boog nga yor ay jumtuwaay yoo xam ne boo ko jaayoon mën a fay bor bi waxuñ nag yow am nga ay pakk am ay yeneen yoo xam ne boo ko jaayee mën a fay bor nga denc pàkk yee bëgg a wane ne asaka nag lii dong laa yor ci xaalis te yor naa bor yu ñu toll kooku da ngay génne asaka waaye ki ñuy wax mooy koo xam ne li mu yor ci xaalis loolu dong dong la am amul yeneen biens yu am fenn te bis bu fayee bor bi li muy desee dootu mat asaka lu asaka war dootu ci des kooku la ñu wax ne asaka wàcc na ko waaye jubluwuñu wax nag yor yu bare bari yoo xam ne yépp mën na gi boo ci jaayoon benn rek mën a fay bor bi nga wane ne rek xaalis bi moom moo ko bor bee tolloo déedéet waaye mën naa xam ne baax baax mbokk yi bokk na ci at tey bor boo leboon nit war koo fay gisatoo gisatoo ko gisatoo mbokkam xamoo ci moom dara yow daal xaalis a ngi nii léeg-léeg nit wax la ko daam ko amee loon xaalis hmm? waaye gisatuma ko gisuma kenn ku bokk ci moom saraxel ko ate mooy saraxel ko saa boo lebee nit war koo fay gisatoo ko gisoo mbokkam moo ko mën a jox saraxee ko wala mu leer na ne faatu na te ay bokkam xamoo leen léeg gis koo xam ne doxandeem la ñëw ci dëkk bi ngeen séq am yaxantu rek mu lebal la jekki-jekki faatu xamu mel ni mbokkam nga lijjanti lijjanti xamoo ko alal jooje lijjanti ko ba mu teew nga saraxel ko waaye bul wax ne faatu na gisatuma ko rek nga tëdd ci du rees yow mal xaymee da ko fay boo ko saraxalee nag mu wàcc la loolu ci atte yi ñu baax la bokk kon bor ñàkk a gis borom du layu sañ naa ko lekk da ko koy saraxel waaye doo ko sañ a lekk bokk na ci attey bor mbokk yi nit bu faatoo bàyyi bor kenn du ko miraas te fayuñ bor yi njuumte lu rëy la nit faatu ñu miraas ko ginnaaw ba ñu jekki-jekki ne ay bor génn kenn wërta miraas nit te lijjanti wu ay borom ndax miraas tarika li li li ndono yi moom mooy buñ génne àq yi génne bor yi la ci des la ndono yi moom waaye bu nit faatu woon bàyyi ñetti million bàyyi borom ñetti million dañuy fay lépp bor donte génn kër la bàyyi yore bor boo xam dañoo war a jaay kër gi dañuy génne njabootam jaay kër gi fay bor yi waaye bu kenn layee ne njaboot yi duñu am fu ñu dëkk aqi jàmbur la gàddu nañ fay aq yi mbaa boog borom boree jéggal leen ko wala ñu muñal leen waaye fii ak aq yi ñu koy laaj moom donte dañuy jaay lim am lépp kar yi duñ donn dara ndax ndono mooy li waa ji bàyyi lañuy ñuy doon léeg-léeg nit faatu bàyyiwut dara ndax li mu ama ko si néew ay bor la kooku bàyyiwut dara ay ndonam duñ doon ci moom dara loolu lu ma taxam la léeg lekk nit faatu bokk na ci yitte yi ñu war a def lijjanti ay borom moo tax kuy jëflante ci alal di bind baax na nga xam ne bu ñu xoolee kayit yi ay dossier danañ gis ñim leb ak ñi ko leb yooyu yëpp ñu topp ko ba mu leer lu yombal la su amuti nag nañu xool ñi mu daan jëflanteel ñu laaj leen moo tax bala ñoo miraas yooyu yëpp war nañ ko lijjanti waaye nit faatu rek ñu gaaw daje daan ne ah, toog ñett nit ñeent ñu ne ku amel bor ñu ne xamuñ ku amel bor loolu doyut mbokk yi ndax ma nga doon jëflante ci jabar ma yi dem ay barab di jëflante ñu ne nañ jokkook ñoo ne ñëpp gëstu ba xam amee na bor walla ameel nañ bor yi ameel ñeneen moom nañ jokkoog ñooña buñ ko jégalee ñoo xam buñ ko jégalewul ñu fay leen ko bu ñuy miraas door a miraas waaye ci lislaam sañuy suta miraas alal joo xam ne ay bor nga ci te génnewuñ bor yi léeg-léeg moom nag miraas ba noppi rek ay ay bor yu bari feeñ njaboot gee dajaloo jaaxle fekk bu ñu defoon lañ war a def danañ mucc loolu kon loolu mbokk yi baax nañu bàyyi ko xel su nit faatoo bala ñu ko miraas nañ lijjanti bor yu am ci lijjanti bor yi nañ ci def yitte waaye léeg-léeg dañuy woo miraas ba mu ñëw rek ñu toog daal di ne ndax ameelul kenn bor fekk ñë ña fa teew mooy ñi gën a néew ci ñu muy jëflanteel mooy ña gën a néew ci ñu muy jëflanteel ñooña doyuñu rek pour wax ne ameelul kenn bor ñu ne kon nañ miraas waaye war nañu lañ bat ay kayitam bokk na ci yooyu itam doomu adama ci boppam di bind lim ameel nit ñi ak lañ ko ameel maa lahu wa maa moo tax wasiyatu bi lislaam di santaane bëgg nit di bind wasiye ci boppam lu am solo dana tax àq du réer lépp lu ñu la ameel wala nga ameel ko nit dana tax ñu man koo gis bu ko defee lépp mën a tegu ci yoon ginnaaw li yeesu leeral nañ ci ne yonent asalaam da ko daan laaj bu faatoo te amul ku kii ñu ne mu ne du ko jullee loolu war naa tax ñu itam bu nit faatoo bala ñoo seddale alalam di jël alal ji di ko jox ku ko yeyewut ñu lijjanti bu bor yi leer bu fekkee leer na te mënuñ koo fay ña koy du ñu xam ne diw diw ñoo war a fay bor bi ñañ koy fay ñu xamal leen ne meeraas nañ kat waaye xaalis bi teewut waaye xayma nañ ko ñi ko jël mooy diw ak diw ñoo ko war a fay te nee nañ bu ñu àggee dat sàngam lañ la ko fay loolu lépp bu leeree it ba tey baax na daan di am ndax léeg-léeg nit faatu ay bagage lay bàyyi bu ñu xaymaa bagage yee génne ca bor ya ña féetewoo bagage yooya bor ba ñoom lay topp su ko defee nag ñu xamal ne ameel na leen yéen ameel na leen bor waaye ginnaaw xaalis bu teew néew fi jaayuñu bagage diwa leen di fay kooka it na wax kañ lay fay ñooñu yëg ko waxtoo jotee ñu fay loolu daal mbokk yi lenn la ci àtte yi aju ci bor yoo xam ne moom lañ ñëwoon danañ ñëw leeral ko jàpp naa ne it danañ yëg ne lu aaju jëm la ginnaaw ñun ñëpp lu yàlla bindee mënuñ cee mujj ndax suñu borom moo ju bind nit moom kenn mënta dem moom dong yàlla la soob nit ñi kenn amut lu mën a faj si soxla yëpp loolu yàlla la moom moo bëgg nit ñi di jaxasoo inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu jooju ak la ca ginnaaw taaruf mooy amlante ba jëflante ba loolu bokk na ci leblante yooyu yàlla jublu kenn ku ne yëg ne sa moroom amal na la njariñ moo tax mu jox ni lu ëpp jox xancee lépp wax kee ne ko bu dikkee leb la lebal ko wax ne ko yéen boo soxlaa bu rëy demal ci kay àbb ko kon loolu day loo xam ne sunu dund ko laaj ginnaaw suñu dund ko laaj nag ñun ñëpp ci jaar néew na ku ci mën a mucc ku wax ne man duma ma leb du ma lebale ndax benn yàlla dafa taw tawféex sutura ba aaje woo leb waaye yàlla sant na la nag ngay leble kon muccoo ci kon war ngaa xam atte yi ci aju ba bu ëllëgee lu mu daal di nga mën koo jox maa ngi jéggalu di baalu xaq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf sëriñ bi. tomb bi dafa mel ne ñi koy déglu jariñoo nañ ci njariñ loo xam ne jéggi na dayo ndax loolu nga mujj rek muy wax ne amut kenn koo xam ne yàlla dogal na nga mën a mucc ci jëflante boobu muy leb ak leble wala yu deme noonu waaye itam li gën a am solo mooy boo dee leb nga doon koo xam ne dangay ngay fay waaye jamono ji da gis koo xam ne xëy na mën naa am moom day wër di leb rek bu lewee kii bu ëllëgee mu leb ka ca des xëy na mën naa am kenn kum ci yéenee fay du am moom la xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa te sëñ bi junj ko léegi mu ne képp koo xam ne jël nga leb nga alali nit ñi te yéene fay suñ borom subhaanahu wa taala dana la dimbali ci nga fay ko waaye itam képp koo xam ne jël nga alali nit ñi te yéene woo fay suñ borom dana sànq alal jooja ba nga xam ne xëy na mën naa am jariñu ga nga ca bëggoon doo ko am waaye itam euh, coonob euh, fay bor dana la ca topp sëriñ bi wone na itam ne loolu lu am njariñ la ci lislaam muy wàllu bor ak e, fayga ak ya ca aju ndaxte bu amul woon njariñ suñ borom subhaanahu wa taala du ko tudd ci ñi nga xamante ne bi ñoom lañu war a jox asaka te kenn mënta mucc ci di leb mbaa ñu lay lebal sëñ bi xamle na itam lan mooy dëgg-dëggi bor ak njariñ li nga xamante ne bi am na ko ci ñaari maanaam yépp ci maanaa mu yaatu lool ak maanaa moo xam ne xëy na moo taxoon ñu tënk ñu tënk thème bi ba tey bokk na ci am solo gum am solo mooy wane ne aaya bi gën a gudd ci alxuraan suñ boroom wàllu bor boobu la cay tudd sëñ bi indi ci lu am solo ci wax ne day doon day am aw yoon woo xam ne moom lañuy ñuy jëflantee bor boobu muy ñu bind ko ginnaaw bu amee yoon wuñ koy jëflantee nga xam ne dañ naan yoon wiikat moom la ñu jëflantee bor boobu ba tey itam bokk na ci sart yi mu doon loo xam ne dañ koy bind waaye itam ñaari seede fekke ko bokk na ca sart yooyu itam mu doon lu ñu wutal ab dikk maanaam dig buñ ko waxee mooy kiy leb ak ki muy lebal kenn ku ne xam waxtu wa wañ koy fay waaye duñ lem noonu rek kenn ku ne dem ba saa sooy mën a fay la ca mujj sëriñ bi indi na ay atte yu baree bari atte yoo xam ne xëy na ñu bari jariñu nañ ci ñi nga xam ne xëy na seen alliwa taxu ko rëy lool ñi mel ne man jaruñ nañ ci àtte yoo xam ne ay sew-sew la ci biir waxtaan wi nga xam ne sëriñ bi indi na ko mu mel ne itam sëriñ bi leeral na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax na ci na ne bu masaan di jullee nit ku faatu day laaj ba xam ndax ame na ay bor wala amewu ko kon loolu day wone ne nit ki bu amee bor war naa mën a xam digg bi nga xam ne moom la ko war a joxe mu joxe ko bu fekkente ne itam faatu na lam fa bàyyi e, ñam fa bàyyi ñu fas yéene taxaw ci fay bor boobu ndax nit ki du dugg àjjana mukk li fekk fayaluñ ko borom yooyu wala fayut borom yooyu loolu li ci tegtal rek mooy xadis boobu nga xam ne e, sëriñ bi junj na ko muy xadis boobu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko saxaaba yi ne leen ki nga xam ne dafa shahid ci yoonu yàlla ay yooni yoon bu fayut ab boroom du dugg ajana kon loolu day wone ne lislaam lu bàyyi xel euh, bor la lu bàyyi xel niñ koy faye la lu bàyyi lu bàyyi xel yoon wi nga xamante ni bii noonu lañ koy jëflantee la kon sëriñ bi euh, ñi ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala dolli sa xam-xam euh, te dëgëral la ba li nga bëgg a jëriñ jullit ñi lépp nga jariñ leen ko tomb bi am na solo lool kon dañuy sant ñëpp ñi nga xam ne ñuy déglu euh, ak di ñu seetaan ci mbooleem tasukaayu xibaar yi di leen xamal ne jataay yi itam incha allah nii ñu ko baaxoo defee rek lañ koy defee suba ak jàmm incha allah suba euh, ñi ngi war a waxtaane al imam malik wa mazhabuhu al fiqhi imam malik muy imaamu daaril hijra muy imaam ji nga xam ne moo nekkoon war a te sëriñ bi digal ñu ñu tënku ci am ngërëm ngërëm moomu lañ fas yéenee jàngale eh, ak jëmmi imaam Malik ci boppam ki ñu ko war a defal mooy sëriñ Abdul Ahad Sané incha allah bu subaak jàmm kon jataay boobu moom la ñuy amal incha allah wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin